métti ci sa vie yow euh, waaw li ma gën a métti ci sama vie euh, Kheucha mën na ni man naqar bu ma am xarit moo ma ko teg waaw parce que déception bu ma mës a am ci sama àddina ci xarit la jógee. parfois sa xarit ngeen di ànd nga yéene ko lu baax mu yéene la lu bon wala ngeen ànd ngeen bokk même passion bi ngeen bëgg. yàlla def xam nga yàlla mooy dogal bu ne rek yi mooy njëkk am li ka diw donc da war a jàppale rek yi mu gën cee dugg ba ëllëg bu rakki demee dugg ba xaaj moom mën na la xaalil yoon bi nga dugg yéen ñaar ay ay da war a doon ay frères et ay sœurs daal mais donc parfois da am lu baax nit ki di la ñaanee xelal la loo xamante ni lu négative la boo ci génnee moom mu am opportunité dugg ci tu vois donc iñaanante bi hypocrisie beeg yooyu daal moom déception yooyu daal la am. mais mën nañu xam yenn genre la parce que parce que aussi ñi lay seetaan am nañ seen ay xarit yoo xamante ni peut-être ñi ngi leen di def yu sew ci suuf te xamuñu lan la mën nañu xam vraiment lan la la sa xarit yi def lu loo xamante ni dala metti trop. non parfois sama xarit dafay am problème ma jàppale ko xëcc man boo amee problème man damay fàtte sama bos. man damay mel ni ko amul problème mais yow sa problème mooy doon sama problème dama lay jàppale ci sa problème. taxawul la ni yaay di taxawoo doom ni sœur di taxaw rakkam nekk ak yow boo jooyee ma jooy boo reetaanee ma reetaan alors que rakki bu amee lu baax yaa ngi ci teg sa bët rakki fu mu lu muy def suba ba ngoon yow yaa ngi koy jéem ni nga ko yàqee boo toogee di waxtaan ak moom di ko reetaan ba pare noonu tey dañoo am benn affaire bu ma seetlu dañ lay conseiller lu baax léegi conseiller lu bon de mm-hmm. dañ lay conseiller lu baax bu ñu la conseillé lu baax nga naan kii daf ma bëgg. alors ko lu baax lañ la conseillé ñoom ci suuf ñoo ngi def lu bon loo xamante ni yow bu ñu la ko waxoon sax doo ko gëm donc exemple boobu daal. allo. oui. Racky noo def. ça va alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm kookan la. man xam nga ban Marie Louise. Marie Diaw. waaw. Ah, ngi ci jàmm. cool alhamdulilah. Euh, dañ maa woo léegi am wax yu ma wax yu ma jaaxal en venant de trois waa parce que parce que da nga demee si Babacar Gueye. Hmm. ne ko que nga ma xam sama jikko neexu la baaxuma dañoo dem Thiès man ak yow bokk xaw ma hôtel ma nekk fa góor ak di wax yu dul jeex yu bari jarul may dugg ci détails yi. man xam nga ma ku ma lu ma waay def dama lay woo war ma fekk la sa kër lijjanti ak ku mënti doon ci àdduna dama ne lu ma waay wax wala lu ma def damay koy woo ñëw sa këram. yow danga ñëw nga ne sama fan nga da maa bëgg yàq saf. Mm-hmm. nga ñëw mu ubbi la samay porte robe ma jox la yére ma jox la nga sol ñooy ànd bali def lépp. non danga may déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu déglu ma ah mosoo sol sama ah, yére mosoo sama sama daal masuma sol sa yére masuma sol sa daal du yor nga whatsapp su ma paree loolu dinaa la ko yónnee xëy na da nga fàtte déglu ma rek ba ma pare déglu ma ma pare ah. rek jël sama frère may la ko ngay génn ak moom muy Abdou Aw ah. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow tey yow yaay xëy ne man danga may yàq parce que man damaa bon moo tax nga bàyyi ma waaw ak après après après nga ne rek man dama bon man di wër di ma yàq si Babacar Gueye pour pour nax parce que da nga bëgg mu takk la dimanche. Euh, mu takk maag mu ñàkk maa takk ak lu mu mënti am loolu man aw ma benn compte bu ma lay rendre. ma nga rendre ma compte mais dama la ne beneen yoon a tee pour bu la naxa dalee laa la wax de xam nga jàmm laa njëkk si laa mës a ma man soxla ma ku ma ragal mais man xam nga ma rek ay dara. man daw ma saala yaay ndeer fekk la sa kër googu noonu nga toog ak ku mënti doon ci àddina def luma fay def la mais dama la ne beneen yoon a tee nekk la ku neex déglu ma déglu ma nekk la ku la neex ci àddina mais dama la ne dama la ne nga gérer li ngay gérer nga gérer te nga génne sa làmmiñ man sama tur looloo tax ma woola ankay boo ko waxul woon du egsi si man euh, yaa ngi amul ki la ko wax wala nangam ak sangam dama lay wax rek yow barki dema moon barki barki dema moon jaay téléphone boobu hmm. am na chance téléphone boobu ko may ba ma naroon ko wax Cheikh Kouyaté ko may ah allo allo oui oui man bu ma bëggee Babacar Dieye takk ma du ma du ma du ma ko nekk di yàq deru kii que ce soit Babacar li ma waxante ak moom moom xam na ko daf ma laaj dama lay fréquenté ma ne ko maag Marie-Louise fréquenté nañ benn at de temps ma ne ko ñu bàyyi ñu bàyyante ku nekk jël sa yoonu bopp. ma ne ko maag Marie-Louise du ñu wax parce que dafa dem Thiès fanaan ak sama far Ablaye Dieng comme xam nga mais bu fi nekk di naan ay danga maa joxe yére ma sol man musuma sol sa yére. raki musuma sa dërëm musuma fanaan sa kër. raki te musoo ma présenté beneen góor bu dul Abdou Aw te Abdou Aw laaj ko est-ce que maag moom wala mës nañu def dara lu waaw ok yaa may dégg. maa lay dégg. nga ne damaa dem fanaan sa sa copain Ablaye Dieng. nga fanaan ndax moom moom loolu loolu loolu ñëpp jot nañ ci. ah d' accord léegi ba léegi léegi d' accord naa lool léegi léegi léegi déglu ma léegi nga ne ñëpp jot nañ ci d' accord loolu su ma paree Ablaye Dieng naa ko léegi yow ma lay laaj yow. yow est ce que ñëpp jot nañ ne que barki dem moo Ndiaye nga yàq biir ñëpp jot nañ que téléphone boobu nga yor Cheikh Kouyaté moo la ko jox. ak ñëpp d'accord nañ que Seydina Seydina Seydina Laay moo lay jooyloo ba baa xam nga ne yow mariage bi du am baa xam nga loolu yow xamoo ci kan ngay dugg de bu nekkee pour pour pour sos pour. dina woote waat mu déglu. non non